bugen koy ɓe musol moyla jande diyamol nte ka ñimmin fo musi jama ba ñon kemele fola jam ni nata agriculture ɗum wotumo kuɗa nte ɓe jiila karambumo min to tour tanka mandinkol ka min fo tour tanka mbama buka songata faro kono de bar tour oga kele fo tour tanka ni wala jiita ya jam message musoɓe mu tubabol yeɓuro ɗimo molaɓe foyaade campagne o kono campagne o kono ayente londi le ay aysatu jifanga londi ay tombon londi ako moola alata amanseer moye jamal bota tubabu kunda ni jamal bota santot wolu wolu aysatu jifanga nin tombon wolu le mun teti tubabo katu nteɓe rofrine comme malo mem ne fol sañi a lafta wole la bi nteɓe tembo min to birikama ni muso bota nan marakisaɓe jannaɓe diyamulal na bota birikama wotumoy ka den minke ke sa en nanata bir kama hoɗen ɗo ɓe bota jeeyi so ɓe yela right lon ne gambia ɗigo ɓe yala right lon thank you very much mr président ay tracte jelle dinna tractol yaya jammey tracto min ndi gambia ɗigol la tracte jelle mo dandula tala alka ñimbu ko min fo muso natanta interview la alɓe nakkumojo la jeeri wallahi kayit ole man soto ngamira wala na mantela ko mo be fo kadu da mada ma nyanta nyembu ko fandela because nte mu product of the revolution led mbe revolution ole kono fa day one the tembo min to andum de fala wala to fa dandula to ndungalon ko musu jamaabe wol to be tarawo ko wol kono woto yaya jamme ini mbara mbe lola jam folo katungal ne ko babu gay kon tol nyaton kol mbe kartala ngana bar babu gay ibe nyimmina wolem revolution o a jartale moya sal ni uh, gambia kono alqur'ano mbe ye ne muslimo wo kam wo halakile alqur'ano kam wo halakile sa muslimo min lata fanna wole ba lola no a fo niŋ maŋ ñiŋ ala ma ala ye na ya ya jame jamee niŋ baara mbe no ma fo a dandulaa to an be folo fo a baraka ba ke sifay ye boo amee def def ko jërëjëf Daha jërëjëf du Gambia rek waaye àddina bi yëpp ko célébrer Guinée-Bissau pare nañ pour célébrer ko France pare nañ pour célébrer ko Amérique pare nañ pour célébrer ko kon Gambia non je <laughs> jërëjëf Dahaba ah léegi lu ñoo def rek mooy dañoo ñëw jox leen yéen ñi nga xam ne na fi toog ñu jox leen mic ah balaa ñoo delluwaat eh, si li nga xam ne moom mooy high table bi léegi ah, ki nga xam ne yow yaa amee mic luñ bëggoon rek mooy dañ bëggoon ñu bàyyi nuyoo bi waaye wax ñu sa tur ak fi nga jóge loolu am na ci solo trop waaye balaa ñoo dem ci ah, first speaker bi dinañ gërëm rek national youth coordinator. coordinating committee bu APRC ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay jërë ngeen jëf kon nag ay ca ñu dem. mbooloo bi may leen ma dama bugg a mi fi toog yëpp ku nekka na nga ekkati sa ndeyjoor fi nga toog nga danka ko ñun ñëpp ñu bokkandoor ñu wax ne président Jammeh a luta continua président Jammeh président continua President Jame luta continua. Long live President Jame. Long live the Gambian Revolution. Africa forever. Africa forever. Ah, mbooloo mi mbooloo mi tey bési bégte la Gambia tey lii man fi ma taxaw suma xool fees na li ma bugg a wax yëpp duma ko fi mun wax di gërëm président Jammeh ngir lan ñun mi nga xam ne tey ñu ñoo ooye révolutionnariste ñun ñoo président Jammeh la woon balaa July di ñëw ñu ngi wax président jàmme président jàmme bi moo plan pour ñëw bi moo plan pour take over this bi moo plan pour jagal Gambia boobu mu ngee dem school waaye doomu aadama olof njaay dafa am lu mu wax mu ne bés bu jot ñu julli ko tu su bés ba jotee mu yomba kon ñu ngi sant suñ borom duma mun a wax fii naag te gërëmuma benn ci doomi Gambia muy doomi alaaji Senghor ak Amina jóob muy ban ndaw kooku mooy ba ndaw kooku moy buuba sengoor lu tax may ah dama leen a ñaan nañ leen wàññi tàccu yi ñu déglu lu tax ma wax buuba sengoor buuba rek du doomi Gambia waaye buuba ci doomi Gambia yi ndaw yi nga xam ne ñoo njëkk a futteeku jël bakkanam teg ko ci xolliti gerte dem toppi soldaar yi ba yundum mu ne leen bokk naa bu neexee bokk bu naxaree bokk bu ci dee bokkee moo tax bañ ko téyee président Jammeh gàcce ngaalama góor nga mu taxaw mu ne leen delloo leen ko fam jóge wax leen ko ne man ma ne mu ñëw uyuma buuba jóg dem uyu ko mu ne ko oyal man ndaw yi nga xam ne démba pare woon nañ pour réew mi jëm kanam ñoo leen ñu liggéey réew ma ne waa Gambia ñu ngee foyantoo luñ amul waaye it soo leen ko seetee tey bug bi ñaari jëmma ñoo ci nekka jëmma bu njëkk bi mooy kii ñaareeli jëmma bi mooy lii ñaar ñii dafa am lum firnde ki bunda ki binda bii def na ndam waaye ndam des na gannaaw waa Gambia président Jammeh lim def ci réew mi xejut ci bukk dañoo tànn li ñu ci neex ñu tànn li leen ci neex ñu def ko mu xej ci bug parce que bug dafa seer waaye Gambia Gambia seetaat leen seetu bi leen yàlla may président jàmme emul ci doom aadama rek yàlla daf ko def seetu bu Gambia wara a seetee seen boppa xam nga am na ñu toogoon di wax ne révolution bi dee na politique moo jóg Babou Gueye Babou Gueye am nga liggéey Babou Gueye yow yaa jiitu di van